Pape Thiam borom Gambie aca Pape Thiam waa di wax baatu onze billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaan rahim ginnaaw man sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur bu wér di ñaanal sama papa yàlla yërëm ko te ko àjjana di ñaanal sama yàlla guddal fanam ba mu fekk sama njëriñ di nuyu suñ papa yi fi toog yëpp di nuyu journaliste yi di nuyu suñ mbokk mbër yëpp sama gars aw ma sama seen fay sama rax bu baax a baax a baax di nuyu képp koo xam da ngay bëgg a partaam wala nga koy ñaanal maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu waa Kër Massar di nuyu waa Gambie Sadio Ba bu baax a baax. loo wax sa adversaire ki nga mën a gasal. général comme yow. su ma adversaire amul lu mu koy wax. bu xeex bu bëri. déggoo Lamine. Hmm. làmb ji dama see am wàll ko kóol nekkul moom mooy téye fi ma teg sama bët nekkul kóol moo tax bismillah auzu billaahi mina seytaane rajiim maa ngi nuyu ñu fi teew ñëpp waaw di nuyu waa ginnaaw raay di nuyu ñu ma àndal kos sama kos toma ak Modou Alkaya Bouba Thior ak Bamba ay siyaar ñëpp waaw di nuyu ñëpp di kontaan ci vraiment signature bi le 25 bu soobee yàlla day xaar bu soobee yàlla. loolu day xaar bu ko waxee day wax lu ko neex rek man nekkul kóol moo may xaar loo li ma koy wax rek. léeg-léeg xale laa daa am fu ma teg sama bët gën da ngaa yàgg si yoon bi mënoo dem man ma am teg si ma am fu ma teg sama bët dama lay puus dem yow ma teg sama bët moo ko pour yow. su wax ji rek. le 25 Issa man damay wax di jëf. léeg-léeg laa la ñaan damay wax di jëf. parce que Serigne Ba. mooy géej am nga taxaw dugg si moom naa ko taxawal dëggal sa bopp. man may taxaw di dëggal sama bopp damay wax damay jëf maay diriger fii. comprendre loo doo plus doo paas. ñu nga doon bëree ak Pape Thiam bokkuñu. man damaa tarbiyu damaa mën métier bi. sama mën de. man loolu ma booy wax te duñ a suñu dama lay duma dama lay daan ci barke Sëñ Fall incha barke maam Serap Fall. barke maam Serap Fall lépp lu ma wax lu ma gëm la. da a taxaw a dëggal sa bopp. lan moo doon taxaw dëggal sa bopp. dañoo a ma daw. loolu da nga koy wax mbër mi daw. comprendre sax doo comprendre. te loo bëgg seen la koy jox wala jox tàkk. yaa wax lu neex. barke maam Serap Fall da ngay wax neex. sa ndox du la jaay de. lan la wax dëgg de. comprendre boo jàppee mu yaay mu yaay na sa bopp de. kon maa la taxut bu maa la bu senkel maa la bu fit. lépp kon dara defu ko waaye. bu la koy senkel maa ngi dirigé fii incha allah. maa ngi dirigé daanu. man munoo maa daan yow dirigé si daan waaw munoo maa daan. dirigé daanu jërëjëf munoo maa daan. waxal dirigé dafa def waaye daanu. damay dirigé damay daan te damay jëf incha allah. damay daan parce que suñu saa damay daan du neex a yàlla. waaw balaa loolu tamit di ñaanal sama mag sama xarit mar la yàlla defoo ko ndama ah. li nekk si man moo ko def dama ragal di ko wax. di nuyu waa Kër Massar MTA impétueuse di nuyu ku si mel ni Pape Mama maa ngi koy ziar bu baax xam nga. mu kaw mu kaw yaa gis naa gars yi ma bu baax a baax. di nuyu xam nga Omar Baas Omar Baas maa ngi koy bu baax gis naa ni mu taxawee si combat bi ak sama benn gars diwaan maa ngi koy sant bu baax a baax sama gars may àndal yëpp. maa ngi leen di sant yéen baax di wax supporter yi. Ah. dalal leen seen xel la 25 maa ngi dirigé fii donc 2008. jërëjëf doomu benn wérante ñu ngi jëlee waay. merci beaucoup. am waaye woo waa Guinaw Rail yëpp ñaari maire Guinaw Rail Ablaye Diop ak Pape Ndiame Dieng maa leen di woo ñu ñëw jàpp ci combat bi so honorable Mame Diarra Fam ñu ngi koy woo ñu ñëw jàpp ci combat bi di woo waa wal joodo ñëw jàpp ci combat bi baax a di woo nag sama pro sama gars nekk Qatar lamb ci seen lamb la ñëw leen jënd bi yooyu booy ñëw ba kalaate booy bi di nuyu sama benn booy rakk papa depuis Italie sama gars yi ñoom ñëpp maa leen di siyaar di le man Top Sow ñu ngi siyaasa waaw di leen bëggee di leen siyaar lépp lu nekk ci man rek Touba moo ko def.